بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من waaw léegi ràlli nañ màngaanti nañ walaqad awxaynaa ñoo waxyu ilaa Muusaa ci Muusaa na ko an eey asri mooy rañaanal bi ibaadi ci jaam yi nag léegi nag comme léegi yàlla def na gañe nga nguur gi léegi nag dangay ngay mbir mi danga koy toggaat gañe nga leen léegi quitté la gaa yi foofu ndax nekkaat ak foofu mën na defaat beneen mën na amaat beneen ful buy amaat ci suuf léegi xam nga li ma la xamal mooy génnal ak jaam yi foofu wala qad naa ila Muusa an asrix bi ibaadi génnal ak jaam yi muusa daal di wàcc bi mu waajee na leen nag léegi borom bi nee na nañu quitté léegi nag na ngeen waaj gaa yi commencé waaj xam nga waaj bi li ci gën a neex xamoo li tax Moussa bi mu génnee gaa yëpp topp leen xamoo lu tax Moussa bi mu génnee li waral gaa yi topp leen man dama war a génn tukki dama war a dem ànd ak Moussa damay dem ci ki nga xamante ni ci famille na la bokkoon maanaam gëmul Moussa ma ab ko takkaay ne ko abal ma sa oor yi abal ma yire abal ma nangam damay dem xew ñoom ñëpp noonu lañ def moo tax bi ñu génnee am na ñoo xam ne yàlla taxutoon ñu topp maanaam ndigalu ndigalu Firawna taxutoon ñu dem dañ naan ah kii di nar a yóbbuwaale sama takkaay yi xaaral ma topp ci xoolal kii million bi ma leboon daf ko nar a yóbbuwaale xaaral ma topp ci am na looloo leen rey alal moo leen rey am na ñoo xam ne looloo tax ñu topp ci mais du yàlla yàllay kese maanaam du du mbirum du mbirum Firawna léegi nag abbu nañ leen seeni takkaay ñii abbu leen seeni sareet ñii abbu leen seeni fas na leen dañuy dem xew kenn ku nekk ñëw abbu ku nekk àbb loo mën a abbu si saqari xarit rek abbu ko dem bi ñu demee bay dem nag information bi tasaaroo ne Moussa dafa nar a yóbbu gaa yi naru ñëw dellusiwaat ñoom it ñi takk seeni fas topp ci ne man diw du yóbbu sama sama fas wi noonu diw du yóbbu sama sama xaalis bi noonu kii du yóbbu sama or bi ci noonu il faut ma topp màggat yéeg ñëpp takkaayu waaw màggat yéeg ñëpp takkaayu da ngay gis benn maire bu màggat laajte ñu ne ko ah ñee dee dañee dem mu ne ah man kay xaaral ma jóg dem duñ ma fi bàyyi dañuy dinaa jëliwaale sama takkaay ñoom ñëpp topp ci. léegi nag biñ ci toppee bi ñu demee ba sës si géej foofu la problème bi amee nag Moussa gaa yi daal di tiit gaa yi daal di tiit. Moussa nag ne ko yàlla na ko muusa dégg nga idrib bii asaaka gis nga foofu la ko door di waxee na ko jëlal sa yet wi nga dóor ko ci géej gi ndax foofu ñaari jaamu yàlla la mooy yet wi ak géej gi mais yeneen yi ci des yëpp daf naan ku lu nekk si sa ndeyjoor sànni li nekk si sa ndeyjoor mais foofu ñaari jaamu yàlla ñoo nar a daje moo tax mu ne ko Moussa jëlal sa yet wi nga dóor ko ci géej gi boo ko dóoree yàpp san mooy day wow mais nag ci kàttanu yàlla bu ko defee nga jéggi ñoom dinañ la topp bu ko defee ma labal leen ci biir géej gi xam nga loolu lan la yàlla di tegtale foofu mooy day tegtale ne nit ku doon woote ne yàlla la ba géej wan na ko nit ne tegtale ne yàlla la ñu ne lu ko wan ne ñu ne ndox xam nga ne jooy yàlla wax dëgg yàlla néew na doole tout le temps yàlla def ciy wane gis nga nam ruus Namrus mooy buur bi nga xamante ni moo tolloo woon ak yeneen yàlla Ibrahima moom it dafa woote woon ne yàlla la moom xam nga lan moo ko rey yoo yoo moo jël dugg ci nopp bi bi yoo bi duggee ci nopp bi commencé di sab naan Namrus xam nga yoo noonu lay sabee nit ñi li ngay dégg yoo naan mbooloo lool noonu déedéet yoo Namrus lay wax Namrus Namrus noonu lay sabee mu ne moom nañ ko sanseel boppam bi ndax yoo wi dugg na ci te mu ngi koy tànqal ñi dagg bopp bi mu daal di dee. xam nga loolu dof la xam nga ne sa bopp ku ko dagg nga dee mais nguur dafay dof loo nit léegi nag yàlla ne na fadrib dooral lahum ñal leen tariqan yoon fil baari ci géej gi yab san mu nekk lu wow léegi dooral dóoral ci géej gi mu wow yab san mu nekk lu wow dégg nga wala tax sa bu ragal bu ragal dooral fa at moomu daal di leen topp firawna firawna wa junoo bi junoo di ak i soldaaram na daal di wax ne dafay dabi Muusa daf koy dabi dégg nga fa xasi yowum daal di leen ñëwal minal yem mi ca géej ma ca géej ga maa xasi la leen ñëwal la xew yëpp ca géej ga la xewee na géej gi daal di ko wan maa xasi borom bi nee na waa addala sànk na waa addala sànk na firawna firawna xaw moo ay nitam na sànk na ay nitam ndeysaan wa maa hadaa gindi leen waxul leen yoonu njub waxul leen lay dëgg kon moom moo leen sànk kon nag yaa banu israil yan banu israil qad anjaynaakum min aduwikum keroog bi ñu demee ba génn ba mu ba na dee ñoom gëmuñu woon ne na dee na xam nga loolu danay am nit dana la sonnal sonnal goo xam ne bu dee doo gëm na dee na waaw doo gëm na dee na loo wax nga ne yéen wanaa gong maa état deewut deewut waaw deewut waaw dégg <laughs> Euh, waaw dinaa la wax téere bi may xool kii daf may laaj maanaam ban téere lay tafsiré mal kitaabu lazi tansuru fii euh, maa ngi tafsiré Riyad bu Baye Niass bi téere baay Niass bi nga xamante ni moom la baay Niass def ci taalif moom la Baye Niass def ci alquran moom lay tafsiré dégg nga <coughs> dégg nga yaa banu israila qad anjaynaakum min aduwikum yaa banu israila e eh yéen banu israil léegi nag qad anjaynaakum musal nañ leen min aduwikum ci noon bi leen tere woon a nelaw est-ce que yëg ngeen ne Firawna dee na yàlla nee na léegi rey naa na kon noon bi leen tere woon a nelaw dee na kon nag léegi li des mooy nañ taxawal diine ji nag waaw nañ taxawal li nga xamante ni mooy tiine ji te mooy tawret wa waxat naa kum jox naa leen rendez-vous jaani bi tuuril ay man ca côté doju ndeyjoor wa waaw wa nasal na ma wàccee aleykum ci yéen man na wa salwa banu Israël yàlla di leen limal tiraanga ji mu leen defal na leen li ci gën a métti ci àdduna maanaam tiraanga ji ma leen defal bi ci gën a am doole mooy ray gi ma ray seen noon xam nga ne Firawna sonnalal na leen de yen ay liggéey ay togg yéenay bale ay fóot yéenay raxas ndab yi bu xew amee lépp yéen a koy def tey noon boobu tegoon leen coono nga xam ne tegoon na leen terewoon na leen bànneexu si seeni jabar di ray góor ñi di jirimloo jigéen ñi di jirimloo seeni baay kon ci ay di loo seeni doom tey loolu yëpp dindi naa ko seen noon bu mag bi rey naa ko xat an jey naa ko min aduwikum wa waxat tukum dégg nga ala jaani bi tuuri ma jox leen téere kon defal jox naa leen tiraanga de yemuma ci wa nazal naa aleykum man na wa salwa yàlla nee na man maa leen wàcceel man na ak salwa mooy li ñuy tuddee yàpp yàpp nga mentu ak lem xam nga yàpp ak lem dund bu neex la ku ko mën a am ñoom dañoo demoon ba ne ñoom lan nasbiru ala tahamin waahid gis nga banu Israël ñu sikk lañ dañoo dëgër bopp dañ na ko yàlla ñun mënuñoo sax ci benn ñam rek bileen yàlla joxee yàpp ak lem saa bu ñu soxlaa day ñëw ñu lekk mu dem mais la ngay gis ne dañoo mën a tooñ eh, par exemple yàlla day wàccee lekk gi ne bu lekk gi heure bu nekk day wàcc day wàcc suba ngeen dékke mu wàcc añ ngeen añ mu wàcc reer ngeen reer kanaa loolu doy na waaye da ngay gis koo xamante ni buy ñëw day indiwaale potu bóoram bu lekkee ba pare sëq ci def ci potu bóor bi yàlla na leen lii nag lii wax dëgg yàlla lii du du aada bu rafet loo xam ne nii day ñëw sax bu ngeen xiifee lu mu jar lekk di baat di dem bàyyi leen lii ngeen di def ñi dem ba mu yàgg ñu ne ko yàlla ñun mënatuñoo sax sax ci benn ñam xoolal mbewti gi fi mu commencé yàlla ne na nazal naa maa wàccee maa wàccee aleykum ci yéen almanna wa zalwa lem ak yàpp nga mentu ay picc ay pitax yu ñu lakk ba mu ñor picc yu ñu lakk ba mu ñor ngeen wàcc ngeen lekk yu duuf yàlla na leen kulloo lekk leen mi na tëyibaatin mu ngi bokk ci yu tee yi nag maara sax naa ko bokk na ci ñam yi gën a baax mooy pitax yàlla nee na maa leen ko wërsëgal kuloo mi na tëyibaati maara sax naa ko maa leen wax lii na leen walaa tat xaw fii bu leen bew di leen ko jox ngeen di lekk bu leen bew bu ngeen bewee fa yaxilu aleykum xadda bi yàlla nee na bu ngeen bewee sama mer dina wàcc seen kaw fa yaxilu aleykum xadda bi yàlla nee na dinaa leen mere dinaa leen mere de fa yaxilu aleykum xadda bi te nag waman yaxili aleyhi xadda bi faqat hawa yàlla nee na ku sama mer wàcc sa kaw sa kaw daanu nga daanu nga këpp nga ñàkk nga waaye nag wa indi naka man la xafoorun ku bëri yërmande la ku bëri njéggal la ci kan li man taaba nag ci ku nangoo tuub yàlla nee na ak maa bëri yërmande ci ñi nga xamante ni dañoo nangoo tuub waaw wa amana ñi nangoo gëm yàlla wa xamila ñi jëf saalihan lu baax waaw waaw waaw wa xamila ñi jëf saalihan lu baax euh, maa maanaal man na man na mooy yàpp ngamentu incha allah <laughs> dégg nga wa xamila saalihan ñi jëf lu baax waaw wa la saalihan ñu jëf lu baax e eh, su ma ixtadaa topp ñu nangoo gindee ko mooy ñu nangoo womatu waaw topp ñu nangoo womatu yàlla nee na ñii daal wax dëgg yàlla tiraanga ñeel na leen léegi nag Moussa borom bi woo na ko pour mu ñëw war a déeyaale ak moom pour mu war a ñëw déeyaale ak moom pour mu jox ko téere bi nga xamante ni moom lañuy tuddee tawreet Moussa yàlla ne ko da ngay woor ñeent fukki fan da ngay woor fanweeri fan Moussa woor fanweeri fan war a giseeg borom bi daal di soccu laal parfum bi mu ñëwee borom bi ne ko Moussa mu ne naam mu ne ko lu tax ngay socc mu ne ko sama gémmiñ dafa xeñoon trop te comme dama nar a dajeeg ci yow looloo tax may socc bismillahi rahmani rahim والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى